ci acte bu mujj bi ñoo leen tàmmal suba gu jot euh, bu ñu dee jeexal euh, tegal leen anniversaire yi nga xamee ni yéen a ngi ñu koy yónnee ci page Facebook euh, bu yeewu leen on reçoit tellement de messages du ñu mën a jàllale lépp nag mais dañ ciy tànn juste rek quelque jàllale seen ay photo ak message yi nga xame ni jot nañu ko mu jógee ci seen ay mbokk donc on finit ay ça pour souhaiter un bon anniversaire aux natifs de ce jour képp koo xamante ni tey la bésam ñu ngi koy ñaanal gudd fan bokk na ci madame Samba Tabara alors euh, euh, Tabara euh, moom tey la anniversaire am borom relax voyage c'est une très grande dame xaritam nekk France Feuz Galsen Korbandi moo fi jaar nee na mu ngi lay bégee bu baax tey ci sa bis bi mu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér madame Samba Tabara happy birthday et puis c'est de la part de personnel bi nga jiite ak sa njaboot ak tout le monde madame Samba Tabara joyeux anniversaire c'est de la part de Ndiaye happy birthday joyeux anniversaire à madame Ndong euh, madame Ndong ñu ngi koy ñaanal moom itam euh, gudd fan tey la anniversaire am c'est de la part de son mari euh, Issa Ndong ak euh, toute la famille Diop depuis Fass madame Ndong loo dundu doyul xam naa sax ni anniversaire yi des na mais peut-être mën nañu koy jàllale di ko fëlaale noonu ci écran bi puisque ñun ñëpp dañuy yónnee ay messages yu bëri fii nag la ñuy jeexal yeewu leen bi tout en vous rappelant que woote yi dafay jàppale ñun ñu ngi jóge ci antenne bi mais am na équipe euh, bu nekk ci ginnaaw pour di leen jox euh, seen i enveloppe waajtaayu tabaski suba itam dinañu dellu si waat un million parure en or saaku soble xaru tabaski ak ay pièces yu mucc ayib yoo xam ne ni mu ngi jógee euh, sant yàlla boutique donc loolu lañ leen jagleel ci waajal tabaski 2019 dans quelques minutes ma àggali yendu ak yéen ci King FM 99 point 4 naa fa yendu